Sénégal Sénégal mbokki amateuru lamb yi gannaaw bu mu wàccee fas njëkk coy ba mu wàcc moom Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production waa Sénégal dañoo dajaloo ne ko Fallou Ndiaye faaw nga defal ñu li ni mel faaw nga bégal amateuru lamb yi nekk ci diwaanu Sénégal mu ne aca leen fekk leen ma ci arène nationale le 27 mars 2021 bii ñu dëgmal ma ne ko Fallou sa yaram dafa tàng de fii 4 millions laay tegal mbër yi lépp nag ngir bégal amateur yi ma ne ko kan nga tuddee sa lamb mu ne kuy bégal amateur yi bi ko samay xarit samay am di jàmm ku ci mel ni Moustapha Diop ministre de l'énergie maire de Louga Matar Ba ministre des sports maire de Fatick Amadou Ba ex ministre des affaires étrangères responsable politique APR ci Dakar Cheikh Tidiane Ba Messi responsable politique à Médina Moustapha Mbeng maire de Kër Massar Aliou maire de la ville de Guédiawaye Pape Diogoy Faye directeur direct news Amadou Diagne nekk responsable politique ci Pikine ancien ministre des organisatrice Awa Diouf di trésorière fàllu ne am na ay invité d'honneur ku ci mel ni Ahmed Youssouf Bengalum borom Kaolack Nouvelle Vision ku ci mel ni Michael Fora borom Jàmmagën Sicap Mbao Fora Pape Abdou Fall président des promoteurs de lutte avec frappe ak ku ci mel ni Gora président des jeunes amateurs de lutte yéen sponsor nga àndal Ndiaye production mu ne ñi nga xam ne foo leen gisee gis fa sama bés boo ñëw fekk leen fa muy waa Best Vision ñi nga xam ne lunette courtage ñoo ci teg loxo ànd ceeg VIP fast food see Adja Degen ànd ceeg xel comme mobile ñi seen xam-xam màcc ci wàllu réparation auto ak marque bu mën di nekk ànd ceeg Ndiaye global business ma ne mbokki amateurs yi mbokki mbër yi bés baa ngoog le 27 mars ci arène nationale ñu ànd ceeg Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production mise ba di 4 millions francs CFA dio soog ba fa séenee nekk ci diggante Mbaye ak Lum ak Momo Ngom ma ne arène nationale le 27 mars njar ndéem lay nekk sa xol dana sedd ndax li ni mel jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee rek euh, lépp luy làmb loo xamante ni dafa bokk ci làmb rek dañuy dem jëli leen ko ndax ku ne gis na keroog dimanche li nga xamante ni moo xew terrain gaal gi euh, Jax woo ñu fa teg million cinq 500 muy mise boo xamante ni am na solo mbëri wuyu si nañ amateur wuyu si nañ mu nekk galaa boo xamante ni neexoon na ndax ambiance bi fa am rek. loolu jar lu nekk amateur yi namoon nañ ko mbër nam namoon nañ ko comme ni ma ko waxee woon démb rek seeti woon naa ki nga xamante ne mooy Général Malika tey maa ngi fii seeti ki nga xamante ne mooy Ibou Ndiaye Obali tey ñu seet ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni nii daanaka mais ko lu bari euh, nit ñi data rattrapé nañ ko foofu ma bàyyi ko ma nuyoo ñu wéer waxtaan bi Ibou Ndiaye nuyu naa la. waaw fay naa la doom day ñoo ngi leen di nuyu bu baax xam nga di nuyu waa Wasaare làmb di nuyu suñu caméraman bi xam nga. di leen nuyu di nuyu sama waa gaaga fii di nuyu sama waa koñ xam nga di nuyu sama mbokku séeréer yi xam nga di leen nuyu bu baax xam nga di nuyu képp kuy bëgge Ibou njaay maa ngay nuyu xam nga di nuyu sama mbokku mbër yëpp tamit di leen ñaanal jàmm. Euh, di leen ñaanal jàmm balaa may ñëw sax ci ci ci ci ci galaaw dimanche bi fan yee paase dama la gis nga def benn sortie mooy bi nga demee géej. ñu sotti la ndox mi nga daw ci autoroute bi image bi nekk image boo xam te image bu rafet la da nga koy gis xam ne kii dafa namm làmb dafa namoon loolu keroog loolu ni mu nekk Tivaouane Peulh. voilà dama entraîné ba pare après bi ñuy ñib si noonu pour dugg si oto bi nag xam nga son yi ñu doon teg noonu affaire yi xam nga am fu ma yóbbu quoi affaire yi neex. xam nga ñuy ñu doon kii rek yëngal rek defuñu ko ngir dara nag mais dañ ko doon def parce xam suñu yaram a tàngoon te et dañoo namoon bëri quoi nam làmb xam xamuñu du lool quoi. su ma su ma su ma su ma déggee da ngeen da ngeen nekk ci biir oto bi son bi daw neex la nga wàcc oto bi daw sotte ndox mi daw ci digg tali bi. waaw noo nga demee nag xam nga ñu droité oto bi wàcc après sotteeku bitee xam nga ne foofu noonu di yëngal xam nga affaire yooyu noonu quoi mais loolu yëpp dañ koy def pour neexal rek ak bëgg fans yi parce que ñàkku ne bu dekkee ñaari nit tamit am na ñu ñuy bëgge quoi xam nga loolu kese la. Euh, loolu kese la image bi rafet na daanaka da ngay gis ne xam ne kii dafa namm li muy def dafa bëgg li muy def mais loolu jàll dimanche bi jot ñu bari yaakaar nañ sax làmb du am ndax fi fi fi làmb xawoon toll mais ñu ñëw foofu fees fees quatre heures foofu fees na dell mbër yi bari nañ ñu ci bari sax jotuñoo bindu ñu ci bari aussi tamit dugguñu mais bi nga dugg see gis public bi nga dugg si gis mbëri yi euh, nga sol euh, yére yére États-Unis lan loolu lan la ba ba noppi. te eh, dañ ko doon gis ci ki nga xamante mooy suñu mag di suñu papa di suñu nijaay muy Tyson ñu ko doon gis ñu gis la keroog nga am melokaan boobu loolu nu mu la dikkee. waaw dëgg nga xam nga euh, ñëw naa si làmb ji jour boobu noonu xam nga saison bi boo bëggee ñu ngi ko doon xaar xam nga di di di am contentement ubbi bu ñu ubbi suñu saison bi. xam nga bi ñu ko obligé ñu ñëw pour bëree pour daan suñu doole xam nga liggéey parce que ñun tamit xam nga ay jeune lañ dañoo toog si suñu digg doole dañoo war a liggéey te amuñu du sport amuñu du làmb moo tax xam nga euh, boo bëggee ñoo ngi waaj saison bi mu métti trop nga toog un an liggéeyoo xam nga xëyoo gontoo xam nga euh, te yaakaaru yaakaaroo lu dul làmb boo bëggee tamit découragé wul ñu ngi suñuy entraînement ñu ngi suñuy mbokk xam nga ñu ñuy jàppale di sonnu si ñun bu baax xam nga moo tax bi saison bi ubbee ñu waaj ko ni ñu ko war a waajee préparer ñëw xam nga euh, ñëw préparé comme ni gars yëpp préparer xam nga ñëw indi li ñu war a indi yëpp waaw noo nga demee. Mm-hmm. indi li ñu war indi yëpp mais bi nga dugg see gis public bi amateur yi ak mbër yi lan nga yëg. waaw man trois heures man moom sama téléphone bi ñu nee làmb ji des na suba ngay kii sax sama téléphone dama ko mujjee woon fay parce que appel yi ngay jot xam nga mënoo nekk si wàccaay yi ñenn ñi di nga di nga di nga ñëw wala doo ñëw. xam nga da ngay bëgg a concentré nga xamante ne que ubbite saison moo doy waar dafa métti dafa am lu bëri yoo xam ne def si raxasu man trois heures laa dégg ne Grand Yoff fees na. ay trois heures laa dégg ne. boobu pare nga pare nga wala pareeguloo. boobu maa ngi si samay bain nekk samay sarax affaire yooyu noonu ay trois heures parce que ñun suñu gàmb yi du ay caaxaan. waaw léegi balaa balaa balaa ñëw ci loolu dama bëggoon ñëw dama dégg léegi nga ne ubbite saison du ay caaxaan te euh, làmb bi du du du du yàgg général du yàgg booy fay du yàgg kii da nga ñëwoon pour compétir laaj na mystique yu bari yooyu noonu wala di ko waaj noonu. gis nga bu du làmb ji sax. Mhm. xam nga doomu aadama yëpp toog sol seeni yére. Mhm. toog. nga ñëw summeeku làmmiñ bu ne di nga tudd bët bu ne di nga wax ñii naan tànk bi ñii naan roos bi ñii naan euh, ku ne di tudd si say cër da nga nekk benn doomu aadama làmmiñ yëpp ak bët yëpp teg sa kaw saay kooku da nga war di saraxe di sangatu di musu si làmmiñ yooyu noonu parce que xam rek kenn xamu quoi ñu bëri dañuy foog ne li ñuy def suñu yaram dañ koy def pour maanaam daan mbër a gis nga mbër li koy daan sport ga fit ak jom yee mais yenn yi dañuy xam nga gi euh, euh, sëñ faagu doon wax rek sangu ba ñu laa sang xam nga suñu maam ba sëñ faagu Mbàkke xam nga moo tax loo rek a tax ñuy ñuy ñuy waajal suñu bopp parce que kuy jëm xare tamit faaw nga waaj waaw moo tax nag ñu waajal suñu bopp préparé wu génne ay sarax xam nga préparé ni ñu war a préparé woo daal ñëw. kon butéel yi su ma ko gisee du pour rafetal bés bi wala taaral ko maanaam pour aar sa bopp la. waaw pour aar sa bopp nga xam nga ak euh, musu si yenn affaires yi quoi parce que xam nga ñëw bëri si jàmm ñibbi si jàmm dara gënu ko. mais euh, melokaan bi nga sol drapeau États-Unis bi. waaw loolu lan la. waaw drapeau États-Unis bi ñu bëri ñu ngi siy wax nag boo bëggee gi mais xam rek kooku moom du dara. waaw dañuy rendre hommage suñu papa xam nga moo euh, Mohamed Ndao Tyson waaw di ko rendre hommage parce que euh, def na gune ne si làmb waaw te gis nga dama ko soog rek ñu bëri seen xel dem si moom. Mm-hmm. yee parce que xam nga rek loo kese la mais du question de dara xam nga dañ ko def xam nga pour tamit. waaw def ko daal pour euh, rafetal bés bi ak euh, def loo xamante ne nii tey dina décor la dina tax xam nga tey euh, nit ki mun na nekk bitim réew nit ki mun na nekk Amérique sax gis drapeau bi xam nga mu am yi bu muy yëg si moom mais teewu tamit ñu suñu drapeau national la am muy vert jaune rouge xam nga étoile bi waaw mais loolu moom du dara quoi. da nga dugg si tak daw. nit ñi yuuxu ne waa ndaanaan bee ponkal mee kan la ñuy tourné muy Ibou Ndiaye mais nga tourne gis sa euh, général Malika joxoñ ko di wax ak moom lan la woon loolu noonu wax bi nga doon wax ak moom lan la woon loolu. non waxuma woon ak moom dara waxuma woon ak moom dara xam nga heure bii nii sax du heure wax parce que dañuy door a ubbi saison ku si nekk yaa ngi sa ruq yaa ngi waajal te affaire yi moom euh, mooy li may wax rek mbaxalu xeer ga njëkk soor sóor taxut a njëkk a yàq waaw mbaxalu xeer ga affaire yi lu des bëri na trop waaw moo tax commencement ga nii rek. bon Zé nag man aw ma benn kii bu may benn arrière pensée wala benn xalaat bu ñaaw champion nga ndaanaan nga yee xale nga xam nga dañoo toog si ut voilà euh, dégg naa nag ay sorteem yu bëri yim ci wax mais nag yooyu yëpp amu problème anyway làmb ji mu ngi suñu kanam waa gën a suñu kanam moo ëpp quoi nañ góorgóorlu parce que ñun ñëpp ay doomu jàmbur la ñun ñëpp ay ndaanaan la ñu ñëpp dañoo ñëw pour ut lu ñu dimbalee suñuy waajur comprendre nga ñu ñëpp dañoo ñëw pour euh, jaayante pour bañ a fecc fen bañ a sàcc bañ a dugg suñu yoon nekku xam nga di di di di ko nuyu di ko félicité xam nga si tournoi bi mu jël wërsëkam nga woon nit moom boo ko fekkee si bësam fekk ko si guddeem maanaam guddi googu noonu guddi général nga woon kenn mënu si dara parce que soo xoolee làmb ni mu demee booy booy fay bëri na ak moom ba wër ko ndomb ñeneen ak ñeneen yegg ko foo xamante ne nii mais suñu borom moo namoon général Malika mooy jël bu jooju di ko ñaana wér a gudd fan di ko ñaanal mu ko di ko ñaana mu doon muruwaayam barki Seydina Mohamed waaw amul problème quoi wërsëkam nga jël na ko yàlla na ko jik ak jàmm rekk ko si jàmm xam nga continuer waatu liggéeyam di ñaana suma mbokku mbëri gars yi nga xam champion yi nga xamante ne yëpp gisaguñu leen gars yi nañu renouveler di seen licence yi ñëw xam nga dàq si seen wërsëg parce que fii moom kenn mënu kenn ku suñu borom dimbali rek moo fi ne ñu ñëpp ay nawle lañ ñu ñëpp ay naataango lañ waaw noonu la demee. mais ko dama gis yéen ñaar seen combat bi dafa metti mm-hmm. dafa yàgg. yàgg na lool buuxante bi bari na ci jaayante doole bi. Mm-hmm. bi nga jàppanteeg général Malika. Mm-hmm. nan nga yëg. waaw bi ma jàppanteeg Zé euh, jàmbaar am na am na am na am na jom. waaw tamit. waaw te tamit xam nga néewu kàttan ñu ñëpp a yem parce que euh, man mii di wax ak yow. ñun ñëpp benn lañ quoi ñëpp ay entraîné que dañuy yeew maa ngi ni damay door a jóge entraînement nii ngeen ñëw jël si ma waaw ñun ñëpp ay entraîné ñun ñëpp ay waajal suñu bopp bu baax a baax waaw te bëre bi mënu woon yomb parce que xam nga ay ñu ñaar ñëpp ay xale lañ ay xale góor lañ di entraîné xam nga ku ne si nekk tamit am nga ginnaaw moo tax combat bi bu ñu tasee mënu yomb mais loolu tamit mooy neexal làmb quoi parce que waru waruñu ñëw di wone benn ñàkk fayda wala di wone loo xamante ne nii tey dañ ñuy jéppi waaw loolu kese moo tax bu ñu tasee dañuy bëree mu neex tëkkuwante beeg yooyu noonu yëpp day jaay làmb ji rek mais du dara. defuma dama dégg dama dégg ci biir kàddoom mu ne def nga kat appi. waaw mais man moom aw ma dara gu may ñaawal si kii wam nu mu tudd. mais foofu kat na wala amul. non man moom wax dëgg yàlla bàyyiwuma sax xel man làmb ji gis biñ si paree ba ñib si. man si laa si pare ñëwaat naa nekkaat samay entraînement ñëwaat nekk si lu ma war a nekk mais ndax ay kat appi euh, defum naa kat appi wala defuma kat appi. yooyu man bàyyiwuma sa xel moom bu jàppee ne def naa quatre appuis wala euh, am na neneen nu mu demee si xelam mais amul benn problème mais l'essentiel li gën a am importance mooy moom moo jël làmb ji di ko féliciter di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mu muur mu doon muur waayam parce que yéenewuma ko dara lu ñaaw yéenewuma kenn ku du moom sax lu ñaaw parce que ñu ñëpp ay doomu jàmbur lañ parce dama koy xoolee sama bopp rek man lu ma am si làmb rek damay daw si ñëw na sama yaay am waaw kon tey moom tamit xam nga am na ay waajur am ay mbokk xam nga kon noonu rek nga koy xoogee da nga koy xoogee ni sa bopp mais l'essentiel saa bu ñu tasee tamit fuga ak fay ak jom rek xam nga ku si nekk def li nga war a def après mooy loolu. dama gis ki nga xamante nii mooy euh, Goro Sock. Hmm. ak euh, fàtte naa tur bi sax. Hmm. ñu ñëw bàkku hmm. amateur yi jóg seen i fan su jóg ñenn yi nga xamante ni faral leen jóg. jékki-jékki làmb ji tas bi làmb ji tasee ngeen war a bëri demi Euh, naka ngeen ko gisee ngeen bëri ba toll foofu làmb ji toj. Mm-hmm. ñu ci ba yaakaar nañ moom làmb ji kenn du kenn du kenn du bëriwaat bi loolu amee noo noo noo ko gisee. waaw ñu ñëpp foogoon nañu loolu man demoon naa ba benn instant maa ngi tiit naan waa mais suñu làmb ji mbaa duñ ko yemale fii nii mu xamuñu ndax après dinañ am ku nekk dara. Mm-hmm. affaire yooyu noonu xam nga mais nag sant yàlla quoi làmb jooju moom saa yi dafa bëri parce que xam nga mooy programme bi sénégalais yi ñoo namm làmb te gis nga jeunes jeunes yi ak doomu aadama dañuy bëgg maanaam ngay dindi seen stress. xam nga ñu bañ ñu concentré wu si benn affaire rek xam nga ñun instant bii nii dafa am benn côté boo xamante ne ni nañ ñu ko bàyyi muy suñu gàmb ji nii ñu am ñu respecté mesures xam nga di bëree xam nga ku si nekk di dàq sa wërsëg jeunes yi di ñëw tey bu ñu bëree samedi bëree dimanche lundi ba vendredi ba gars yi làmb nga ñuy bëgg di waxtaanee si marché yeeg si mbedd yeeg yëpp loo nga ñuy bëgg di waxtaanee gars yi dinañ dem ba dinañ tàgg leneen wu dul ay affaire euh, politique wala yeneen kon nii. làmb ji boo boo gisee jour boobu noonu champion yooyu noonu dugg si ñoom góor a gaa yooyu noonu dugg si xam nga làmb ji jaxasoo waaw mais gars yi ñoo namoon ñoo namoon mbëri rek loolu kese la mais du dara xam nga làmb tamit xeju woon foofu noonu waaw surtout nag gars yi nañ euh, promoteurs yi suñuy tëggati genre bés yu mel noonu nañ ko yóbbu si stade yu mag yi parce que lutte simple dafa doon loo xamante ne nii xam ñu si maanaam ñi si ñi si ñi ñi ñi si ñi siy gis seen bopp dañoo bëri parce que benn amul violence dafa neex ambiance bi animation bi xam nga te di nga ñëw jënd sa billet seetaan ba ñibbi te doo si am benn affaire boo xamante ne ni da ngay waaw. Euh, gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw bés boobu jàll na keroog sax man dama gis premier combat yi dama gis nga jàpp gars yi xalab man waa mais Ibou Ndiaye mii xanaa dafa mer. waaw non xama rek gars yi moom. Euh, ay sàmm waaw da leen doon wan ne ñii ma maa ëpp doole du ma ak ñoom. non du googu sax gars yi ëpp ñu ëpp ma si kenn dooge gaa yëpp ay ay ay xalab yi nga sa premier combat bi jàpp waa ji man xamatuma sax nu mu da nga jàpp ak sànni fenn waa lii kan moo ci des waaw non yi moom gars yi yëpp ay ndaanaan rek am nañ dooga de gars yi kenn néew si doog gis nga nga ki si gën a ndaw moo gën a wow sax kii mais nag xam nga euh, man moom gars yi mu mooy li may wax chaque jour rek mënuma ci kenn waaw suñu borom moo may suturaal rek may am si ñoom ndam xam nga ñoom tamit des fois tamit xam nga seen suñu borom suturaa nga ñu am sa kaw ndam waaw loolu kese parce que fii moom kenn mënu kenn ku yàgg a rek moo fi ne waaw di ñaan yàgg wér ak gudd fan mu bàyyi ñoog suñu sago ba suñu carrière bi nekk suñu kanam xam nga ñu yeggali ko si jàmm quoi. mais que tournoi bi ban combat nga ci nga ci nga ci nga nga ci contact xam ne contact nga def nga effort vidé nañ la ban kon ban combat jàpp ne moo ci gën a moo moo ci gën a neex et puis moo ci moom nga gën a joxe quoi. non tournoi bi boo gisee sax mu demee nii gis nga dafa am loo xamante ne dafa métti gis nga gëj a compétir a bëri gëj a bëri dafa doon loo xamante ni dafa métti parce que da ngay entraîner di nga am doole gis naa ci mbër yoo xamante ni dañuy contact benn ñaar nga xam ne bu leen woon demal toog sax ñu jël. waaw loolu tamit day am mais tamit programme bi mooy tey ñun tooguñu woon di seetaan tooguñu woon defe naa ne corona bi yëpp. confinement bi yëpp gars yi ñu ngi gis suñuy video ñuy ambiance di animé di neexal man di bëggal suñu supporter pour won leen te di ñagaw ñoo ngi si affaire yi waaw tey boo gisee affaire yi demee noonu tey xam nga euh, làmb ji passé mu am nu mu demee sax parce que gëj gëj a bëre bi gëj a bëre baaxul dafa métti gis nga di ngay entraîner am doole di ngay contact di ngay dem saal di def tout di yéeg ay din mais compétition bokkut ak yooyu noonu yëpp compétition beneen xeetu physique am nga beneen xeetu dooleem nga moo tax nag il faut nga wàcc benn làmb ñaar adopté wu bu ko defee nag fi ngay fi ngay fi ngay fi ngay kiiwee da ngay da ngay naqaree résister waaw moo tax nag xam nga premier combat premier tournoi bi nii mu demee woon nii xam nga ñu am ay jàngat yu bëri yoo xam te ne toog nañu waxtaan ak staff beek mbokk yi ku ne gis faay yi xam ne lii mooy li nga xamante ne nii mooy moo manqué xam nga ñàkk compétition kese moo tax parce que da ngay da ngay manqué repère xam nga mooy li ma wax rek mooy ñàkk compétition bi parce que du kàttan du du du du résistance du du du du doole xam nga te ñun moom xam nga duñu ay ragal ay doomu séeréer lañ ba pare xam nga juddoo fii yaroo fii màggee fii gis wu ne. kon dara jaaxaguñu waaw noo ko demee. Euh, est-ce que defe naa ne weekend bi euh, defe naa ne amateur yi dinañ màndi làmb ndax euh, samedi. Fallou Ndiaye woote na Arène Nationale te 4 millions dimanche bi yaakaar naa Jax moo woote encore Adrien Senghor est-ce que pare nga pour yaa ngi yaa ngi ci. waaw ñun moom xam nga ay mbër lañ ñun jàpp nañ ne jour bu ñu toog bëri tey bu nga am amoo sax dañuy dem jour bu ñu toog bëree rek. Euh, pertement ga hmm. jour bu ñu toog bëree rek pertement ga moo tax instant bii nii nii fi ñu toog nii xam nga bëri rek la ñu war a def quoi tey fu gàmb am rek dañuy dem dàq ji suñu wërsëg fu suñu wërsëg nekk rek dinañ ko jot. yee parce que man moom mooy li may wax chaque jour rek ñaanuma yàgg rekk du suma wërsëg waaw te nit moom boo ko fekkee si bësam waaw day naqaree jógee foofu noonu te nit moom booy ñaan da ngay ñaan xamante ne nii xam nga euh, soo si jotee rek nga bañ si am benn jafe-jafe wala benn kàllaankoor lépp lu ma nar a rek si làmb rek. yàgg na doon boo xam te ne wërsëg lay doon ñaanuma yàgg rek du sama wërsëg mais essentiel lépp gu ma war a def pour jël ndam gi dama koy def voilà. mais bu ma génnee ci loolu boobaa ak léegi gën nañoo gis sa combat arène mais est-ce que gaa ngi lay démarché wala boog euh, ñu ngay yóotu ñoo ñoo ñoo la nanguwul jël dañoo comprendre ko parce que Ibou Ndiaye ñëpp xam nañ ko ci làmb mais gis ko bëre lutte avec frappe loolu dafa xaw a jafe. waaw mais xam nga gaa yi dañuy utu nooy gars yi dañuy utu nooy ak yu yomb xam nga di ay paa ñooy jëgante seen biir. yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu moo fi am. waaw te ñun moom instant bii nii moom xam nga toog nekk nañ ay nekk nañ si si si guddi yoo xamante ne nii tey. xam nga dañoo war a wane suñu bopp quoi kon grand frère yi nga xamante ne nii ñoo nekk si kaw xam nga dañoo war may booy yi ñu jóg parce que gars yi dañoo war a gis yeneen produit yi si kaw. dañoo war a gis yeneen produit xam nga yoo xamante ne nii tey dinañ xam ne xam nga ay. booy ci diw ak diw. diw ak diw revanche kii ak kii revanche kii kii. te booy nekk suuf di prouver. ay produits yoo xamante ne ay 1997 ak 1998 lañ fi nekk ba tey xam nga te ñun ñu ne fi nekk ay booy war a tamit nekk si benn niveau bi. Yeah, kon gars yi nañu jàppale parce que yow tey tey sama combat tey ku ko tëgg saa ñun mënuñu am ay programme mu billet ñu jox si ay billet koy jaay. yee dañoo am ginnaaw xam nga am ay mbokk séeréer yi nekk sama ginnaaw yaakaar ma su ma jugee séeréer yi kenn du des marché yeeg port ak waaw te man tey su ma duggee si làmb rek euh, ndeysaan da ngay gis mag mag mag yoo xamante ne dañu ngay gis rek seen xel dem si duur Bakar Sarr seen xel dem si Manga xam nga seen xel dem si Maam Jambaan ah sama papa docteur fay xam nga ñoom Ousmane dem Diouf yor xam nga tey dama war a ah, dafa am loo xamante ne man rus naa am combat arène xam nga du ma indi nit loolu mënut a sax nekk. waaw parce que euh, diggante ku xam séeréer te xam ne séeréer euh, séeréer day sot. tey su ma amoon combat du benn doomu séeréer du des. xam nga dawakatu sareet yi marché yi te xam nga ku xam ku xam séeréer xam ne ñun xam nga dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo nekk ay bañkat. waaw kon tey combat bu amoon dara du des ñëppay ñëw stade ñu indi cosaan xam nga indi indi indi ambiance waaw indi indi di indi yëpp waaw. mais su ma su ma su ma su ma déggee ni ngay waxee. maanaam ko nambul lit avec frappe nga. mais tey soo doon lima ñett. parce que mbër yi man mënumaa nangu nga ne dama gëj a bëre toog ne noo gaawul da nga naan ñii suñ ñëwee ñu ba parce que di nga gis ci ñoo xamante ni ay mbër ay ndaanaan la ay bañkat leen te leer na leen yàlla ne boo leen dëkkee wala boog bu leen promoteur yóbbulee avance duñ ko delloo ñaar wala ñett si ñi nga xamante ni yaakaar nga ne yow ak ñoom ku ko tëggoon di nga gis làmb ju neex soo ma ko dee limal ñan lay doon. waaw instant bii nag bugguma fi woon nekk sax digg digg mbër quoi parce que xam nga rek fii koo fi lim day jàpp ne xam nga mooy loolu mais gis nga grand frère yi ne si kaw yëpp parce que bàyyiwuma si kenn. grand frère yi ne yëpp parcelle daa ngaa xam ne. Mm. parcelle fi ñu nekk nii nii nii nii laa xam ne daal ah mun naa leen bàyyi si làmb mais à part parcelle fépp fu mbër munti ne fépp fu mbër munti ne parce que man du ma produit boo xamante ne nii ay ay ñun dafa am combat yoo xamante ne moom la ñu war a bëri mm-hmm. muy ay combat jànq ay combat mag ay combat yu combat yu mag yoo xamante ne dañ si war a wane suñu bopp parce que kenn ëpp ñu ginnaaw kenn ëpp ñu ay mboq waaw te bu ñu open pressé wala ñu wàcc stade bu ñuy dugg si gars yi dinañ xam ne yee am na koy dugg si suñu borom moo def googu yaaga moo def nit day gis nit bëgg ko boppam te yaaga tax am na ñoom te ne dañoo bëgg Ibou Ndiaye bëgguñu Ibou Ndiaye ngir ngir ngir ngir moom en personne mais li Ibou di def xam nga ak te parce yow tey man ràmb ju ma dugg du neex waaw gis nga ràmb ji nii passé waaw ju Ibou Ndiaye ñëw parce que man damay damay damay damay jox amateur gi ñu soxla waaw damay jox amateur ñu soxla du ma koy def nag pour dépasser benn mbër man duma saaga benn mbër si biir géew yëngal yi ak yi may wax noonu yëpp gars yi bu ñu ko gisee dañuy foog ni dafa am looy wax mais doo wax dara da ngay neexal affaire yi maanaam jaay làmb ji yëngal affaire yi loolu kese la. mais ba tey ñemewoo ma ma ñaar ñi nga xamante ne ni Ibou Ndiaye euh, yaakaar na ne ñoo moom làmb ju neex la. xam nga interview bi dina daw si internet bi. mbër yi dinañ ko seetaan mbër mi mbër moo si mbër mbër mu si pare. jàpp ne yow ak Ibou Ndiaye neex na wala war nga mun a bëre Ibou Ndiaye wala ñeme nga avance Ibou Ndiaye am na promoteur bu taxaw instant bii nii yor sama avance buggu ko jox mbër amu mbër bu mu ko jox instant bii nii mais am na ay grand frère yoo xamante ne bii moom naa gën te instant dañoo nekk si ay combat mais du ma wax seen tur. mais Cobra ba léegi amul waaw Cobra neex na mais ñoo ñëpp boo seeti jee duñ jël avance bi. Cobra boo ko seetee jël du ko jël. li. ñoo ñëpp neex na ñi ngay wax nii ñëpp neex na. jël li jël li de du mu seet jël li bu ñu àndoon avance am nga lekk ko. moo yow. gars yi ñoom ñëpp ndeysaan ay champion gañ nag ay ndaanaan lañ waaw moom dara du ko dàq loolu day neex waaw sama combat man ak Cobra ni ci gars yi taxaw Cobra bu dee pare na moom euh, avance bi tey tey tey day dugg li ko metti woon yéen waa paase yéen ko teg ndax góor soog moo ko mujjee woon daal waaw góor moo ko mujjee daan quoi mais nag ndaanaan nga waaw Cobra moom champion nga moom wax dëgg yàlla Pikine xam nga ay champion rek a fa nekk comme champion yi ni ñu nekkee fii nii parcelle ñun ñoo mun a bërante suñu biir mayante xaagi suñu biir mais ku si nekk boo bëggee toog sa ruq naan du ma bëri di waga di xool yu nooy waga di xool koo xamante ne wóor na leen kii boo ko jëgee boo ko jëgee mun nga ko daan xam nga waga nga ñëw fekk benn paa boo xamante ne wóor na leen kii xëyatu dem matinalu pro programme mu àddunaam yi ñoo ko ëpp doole mu bëgg combat nga jël ko daan ko foog ne mbër nga daan gars yi ñun nañ jëgante suñu biir waaw ñun nañ jóge suñu biir sama avance mu ngi fi mbër bu si pare pour bëre ak man ah pare naa pour bëre ak yow ku mun ti doon nag ba mu des mbëru parcelle xam ne xam nga. Euh, euh, dëkkante woon ci dëkkante bu métti sax. waaw waaw. <laughs> wala loolu léegi rek la ngeen. non loolu rek la nañ ko maa sama copain Boy Faye. <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom <laughs> amul lu ma garga mboose yekkul waaye nag àdduna amul solo. waaw suñu grand garga ñu ngi koy nuyu depuis États-Unis xam nga di nuyu suñu grand Moussa Dioum moo ñu jàng bëre. xam nga di nuyu grand frère yëpp xam nga maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw vraiment xam nga kontaan naa si déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fii nii seetsi ma ñu toog waxtaanee xam nga affaire ràmb waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. mais bu ñu jógee ci loolu dafa am na combat bu mag bu ñuy bu ñuy dëtmal. 4 mm-hmm. du suñu bësu indépendance euh, suñu papa Gasson tëgg ci combat bi nga xamante ni nii euh, daanaka tollantiwaat lay nekk ndax bëri nañu def match nii ñu bëriwaat kii di Eumeu seen daan Lac de bii nag euh, ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mën na la delloosiwaat ci làmb waaye ku ci nekk boo daanu mën na la génnee làmb naka nga see boobu combat la de Guiers Eumeu Sène. waaw Lac de Guiers moom xam waaw. <laughs> ñooñu moom vraiment dañ leen di ñaanal jàmm rek waaw ñaana leen jàmm ba seen combat bi seen contrat bi ñu nekk ñu génn si jàmm ñu bëre ko si jàmm waaw ku si suñu borom may ndam rek après nga nga nga gérer ko quoi mais ñun moom instant bi ñu wax dëgg yàlla suñu bopp nga gën a nekk que grand frère yooyu quoi dëgg yàlla nit moom booy wax da ngay wax te te yàlla rek tax waaw doo wax ngir ngis te wala leneen mais muy Eumeu Sène muy Lac de Guiers ñoom ñëpp ku si am combat que le meilleur yee que le meilleur gagne quoi ñun instant bii nii man moom sama bopp laa gën a tag quoi que que que que que ñooñu quoi. mais mën nañ la xaar ci bés ba nga wàcc. taaral bés bi. tuus bàkku parce que ku ne xam ne euh, sénégalais dañoo nam làmb te bii mooy combat bi gën a mag bi nga xamante ni bokk nañ ci euh, tijji saison bi. Mm-hmm. waaw waaw incha allah rabi ñun moom lépp luy waagu sport rek fu ay mbër war a daje rek incha allah bi dinañ fa wàcc ñëw taxaw xam nga wane tamit suñu bopp. waaw te xam ne gaa yi dañoo war a ñëw ñu bëri nañ ñu jël ñun booy xam nga nañ ñu jël ñu bëri ñun booy gars yi mun a gisaat beneen beneen beneen produit si kaw mooy li may wax rek parce que dañoo war a wane suñu bopp bu dee ambiance kenn dàquñu ko bu dee mbooloo kenn ëppuñu ko xam nga ku si nekk da nga am wéeruwaay ku si nekk da nga am ginnaaw yaa ngi dégg bu dee xew kenn gënu gënuñoo xew parce que ñun tamit fu ñu taxaw si mbedd bi gars yi dañuy daw si ñëw di dañuy dem si xew sax di am problème kon yooyu yëpp du problème quoi gars yi nañ ñëw ñu ñu bëre suñu biir waaw loolu mooy l'essentiel bi man loolu laa bëgg grand frère yi ne si kaw nañ jox booy nekk si si si nañ nañ may booy loxo si kaw booy mun a génn dem seen yoon tamit. parce que mbapat bi ni ñun dañ si nekk nii rek dañuy compétir. xam nga bañ a toog. xam nga dañ si dañ si nekk di compétir bañ a toog parce que tamit mënoo ne mbër nga nekk sa koñ rek yenn ay weñ di dox di dem di ñëw ñu naa nga champion xam nga mbër yi dëgg dañ leen di xàmmee bu saison bi ubbee boo amul combat. da ngay renouveler sa licence simple wàcc si mbapat mi waaw di compétir di nga si am compétition di si am entraînement te des fois suñu borom suturaaga nga am si weccet ñëw dugal sa biir gaaga bañ a ñaan kenn xam nga bañ a taxawaagu bañ a dugg sa yoon nekk wala di ñàkk sa sa bopp fayda si kanamu nit waaw. Euh, su ma génnee tuuti ci làmb Ibou Ndiaye lan la gën a bëgg ci lekk maanaam plat. waaw supu kanja moom bëgg naa ko ko <laughs> waaw supu kanja moom sama plat bëgg naa ko trop. Mbacar boo doon dem entraînement bu nuy Ibou Ndiaye kaay suuf kaay nga xaw a def. non ma bàyyi entraînement yi ba rek suuf kaay ba pare door dem entraînement <laughs> waaw loolu moom waaw bëgg naa ko. soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo. waa kàddu yu mujj mooy di ñaan Sénégal jàmm xam nga feebar bi nga xamante ne nii moo téye woon àdduna bi tënk ko sonaloon ñu trop téye ñu boobu ba léegi xam nga suñu borom def si jàmm mu juge fi. ba ku nekk dégg waat say activité waa dëkk bi ni mu commencé demee nii tamit baax na bàyyi ñëpp ku nekk déggu si nga doon fortaatu as néew xam nga ñu gën a respecté mesure takk masque yeeg yooyu xam nga euh, ñu bàyyi ñu ñu nekk suñu liggéey bii tamit nga xamante ne moom nga ñuy suturoo mais tey jeune boo ko bëggee téye tënk ko rek ne ko doo génn fii néeg bi parce que feebar mu ngi si biti wala doo dem fenn doo entraîner doo def dara ah mais loolu tamit dafay métti après kooku day bëgg di xalaat di am si yeneen yu xelam di ko jox mais tey bu ñu bàyyee nii rek ñu concentré aussi ñun si lu ñu nekk nii rek léegi Sénégalais yi ne si jàmm waaw di ñaan réew mi xam nga di nuyu képp kuy bëggee Ibou Ndiaye partout dans le monde parce que man fu ne lañ may woowee làmb ji fu ne lañ ma woowee xam nga parce que suñu borom mooy def nit gis bëgg nit gis nit bëgg ko boppam te yàgg te di nuyu sama fan yi xam nga suma supporters yi di nuyu suma bokk mbër yi xam nga di ngay ñaanal jàmm xam nga di ñaanal ñëpp jàmm képp ku siy takk ngemb maa ngay ñaanal jàmm gars yi nañ dem renouveler di seen licence yi ñun ñëpp ñu wàcc si mbapat yi di nuyu champion yi nekk si lutte simple bi yëpp xam nga ñoom caaka euh, fay sama grand xam nga ñoom euh, ngel John ordinateur xam nga euh, général Malika xam nga di nuyu gaa yëpp champion yëpp xam nga di nuyu suma waa dëkk waa Diofior maa ngi di nuyu bu baax parce que xam nga rek aw ma seen fay ñu ngi jàppale képp ku nekk doomu Diofior maa ngay nuyu di nuyu mbër yi nekk Diofior yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu suma waa koñ fii di waa parcelle 1 ba 26 waaw di nuyu suma entraîneur yi suma di nuyu sama grand Moussa Dioum di nuyu suma booy yëpp waaw di nuyu suma yaay di nuyu suma waa dëkk xam nga uh, waa waa Diofior waa Fatick ñëpp maa ngi sant ñëpp xam nga di gërëm ñëpp quoi di ñaan jàmm yàgg fi waaw di ñaan saison bi nga xam te ne moom nga ñu dugg muy saison jàmm saison deux mille vingt bi yaa nañ suñu borom taxaw sàmm ñu si aar ñu aar ngeen yéen tamit ngeen di dem di def seen liggéey si jàmm di ñib si. waaw loolu daa mooy àdduna quoi di jégalu ñëpp xam nga di jégalu fans yi supporters yi weekend bi xew. xam ñu ngi siy jéego bu baax di ñaan yàgg ñu comprendre xam ne gëj a bëre bi ak gëj compétition bi yëpp def ciy bokk waaw mais nag du dara waaw incha allahu bi fan yi fan yi rek dinañu gisaat si yeneen affaires yi. beneen Ibou waaw. gis ngeen noonu la leen koy defalee di leen wax na yeneen bëri nañ ñu xaar ndax bu ñu jógee fii am na keneen ku ñuy seeti di leen di di leen jox dig daje di gërëm sama caméraman bi Adama l'infatigable di leen wax ba beneen wala dafa am loo fàtte. waaw dafa am benn affaire ma bëggoon wax rek. waaw di di di di nuyu suma fans club bi parce que dafa war a génn dañuy sonn si man waa ñii ñu ngi Espagne ñii ñu ngi France ñii ñu ngi fu waaw dañuy cotiser di ma jàppale depuis corona bi ba léegi ñoom ñoo siy jàpp di ma fay fayal saag xam nga ku si mel ni suma grand du John maa ngi koy sant di ko gërëm xam nga di nuyu waa Ndiédiène di nuyu soxnaam yi di nuyu njabootam kooku day xañ ay doomam sax di ma defaral waaw su ma waree seetaani si aag bi moo may soog a gaz waa yëkkati xaalis may ma su ma demee sëriñ moo koy fay su ma waree bëri ji sarax bu war a génn moom moo koy fay te am ay jabar am ay doom kooku aw ma fayam. xam nga nii da ngaa ko mun a gërëmee àdduna bi yëpp xam ko muy ñoom Kangou Jàngar xam nga sama sœur bi nekk Maroc ñoom ministre ñoom Xaadim ñoom Ibou Sarr gaa yëpp xam nga ñoom Kojo nag ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ngeen jéggagu di ngeen baagu àq parce que dama ngeen amee àq ñooñu su ma taxee ngemb du ñu am jàmm bu gàmb ji jeexee euh, commentaire yi si groupe WhatsApp yi ñoom ñëpp kenn du si am jàmm mais maa ngeen di jéggagu di ngeen ñaan jàmm fu ñu nekk xam nga di ñaan nañ gën a jàpp rek incha allah rabi dina baax saison bi dafa day door a ubbi te affaire yi moom waa des na lu bëri mbaxalu xeer nga njëkk a sóor taxut a njëkk a yeq waaw nañ dem ba ci kanam rek incha allahu rabi yàlla baax na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di nuyu nag monsieur le maire goo Faye waaw monsieur le maire Go Faye incha allahu rabi mooy futur maire parcelle ñun loolu lañ koy ñaan te jeune parcelle yëpp ñu ngi si kawam ñu ngi si ginnaawam maire yeeg femme yeeg xam nga euh, mouvement réaction yëpp actuellement mu ngi États-Unis mais maa ngi koy nuyu bu baax monsieur le maire di ko ñaanal wér ak gudd fan parce que day taxaw jeune Parcelles yi social bi mu ngi si hôpitaux yi ku feebar day ñëw jàppale la waaw ba sama koñ fii nii am na ay maire yoo xam te bu ñu feebaree man maa koy woo mu ñëw di leen jimbali say ordonnance ak bi gaaxi wa gaaxi waaw nit ku baax mooy kooku ak raxam bi xam nga euh, DG maa ngi koy nuyu bu baax waa sama grand boobu noonu bëgg mu boppam te yàgg rek tax maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam ndaak di leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu waa mouvement réction yëpp di ñaanal monsieur le maire Go Faye incha allahu rabi élection mairie yi di ñëw suñu borom may ko mu gagné ko parce que waa parcelle soxla nañ ko ñun jeune parcelle moom nga ñu àndal waaw te actuellement nii nii nii moom nga ñëpp jox bopp. maa ngay ñaanal bu baax monsieur le maire Go Faye gudd fan ak wér xam nga ba ñu téye parcelle suñu loxo parce que boo ko yoree di nga ko diriger waaw xam nañ yéene bi nga am si jeune parcelle bi xam nga xam nañ yéene bi nga am si population parcelle bi incha allah bi suñu borom dina nga jàppale parce que am nga fuga am nga jom yee te bëgg nga sa gox muy parcelle waaw. gis ngeen ni mu ko waxee di leen jox dig daje ba beneen yoon jaa jëf.